joxe nañ ci également ay masques yu bëri ay gel hydroalcoolique joxe nañ également lépp loo xam ne kit euh, d'hygiène la bokk na ci également kotol euh, et cetera en tout cas daal amul ci xam ne euh, tey mënta wax jotul ci préfet wala jotul ci maire wala jotul ci conseil départemental wala jotul également ci ay bonne volonté li nga xam ne mooy matukaay yi. donc ñun ginnaaw bi ñu defee la ñuy def nag yokk ci ndogal li bees yi nga xam ne moom la kilifa yi jël démb nag ñun ñu ñu dootoo daje boo xam ni. Euh, maire mi ngi ci conseil départemental mi ngi ci euh, kilifa diine yi ñu ngi ci euh, ñi toggal xale yi maanaam jigéen ñi ngi ci ñu toggal jigéen ñu ngi ci chauffeur yi ñu ngi ci donc bàyyiwuñ kenn ñu bàyyiwuñ kenn donc mu mel ni kon ñun la ñu war def nañ ko ci wàllu maanaam xamal ci wàllu accompagner maanaam gunge def nañ ko li ci jar li ci des nag mais ginnaaw nag bu mbaar comme que lii am na ba pare mënut dañu toog chaque jour di gis à Ziguinchor ay 20 cas ay 10 cas mais mënul nekk dafa mel ni population bi kon ñu ëpp ci ñoom dañu def maa tey mais ki def maa tey nag mais da nga jàkkaarloog yoon yoon dafa yow la mu a def parce que le 2 mars ba léegi ci diiru juróom benn juróom weer juróom benn weer am nañu ñaar téeméeri ak juróom benn fukk loolu warul te ñu ci ëpp doole boo xoolee daanaka euh, mën naa ne xale yi ci lañ bokk mag ñi naam ñëw ci ëpp ah, mais loolu dafa dafa doon loo xam ne dafa warul en tout cas daal euh, gis nañ ne daal sur ces 260 cas bon 141 141 ay communautaire la 118 cas contact ak 9 importés donc cas communautaire yi mopp Ziguinchor mais lu tax cas communautaire yu parce que loolu ci ñun la boo feebaree nangoo dem hôpital wala boo feebaree nga nekk ci koñ bi see dëkk ndaw ci xam da ngaa feebar woowu xam ne ñoom ñooy wala woowu ki nga xam ne mooy ko wala police mais cas communautaire day ëpp mais nag lu mu mënta ñàkk foofu ñu def ko te moo tax tey ñoo taxaw nag vraiment jàmmarloo ko ñi pour le moment daal euh, duñ jàpp man na juróom fukk waaw donc déjà tàmbali la rek parce que bi ñu commencé yàggul incha allah dañ def marché yëpp bu soob yàlla dugg ci restaurant yi dugg également ci lépp loo xam ne nit dañ fay daji euh, pour nag ah li li ñu bëgg wala li kilifa bëgg te ñu war lañ ko bëgg bëggale ñu def ko ndax lu seen njëriñ la donc boo gisee lu tax amul résistance parce que xam nañ ne la ñu waroon def nañ xam nañu ne ñoom ñoo tooñ ah ku tooñ da ngay nangu tooñal li teg nga nangu ko aussi ndax yaa ko def